le tour des classes l'année dernière, en fin d'année, qu'est-ce que je vous avais dit Que je vais vous reconstruire l'école, mais je suis un entrepreneur. On signe un contrat. Et vous allez me payer. Vous allez me payer avec quoi Donc, vous allez être tous admis. Le contrat tient toujours, vous l'avez dit, devant votre ministre. Il viendra vérifier à la fin de l'année. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Madame l'inspectrice d'académie de Thiès, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de thiès Monsieur Baratal Talix, PDG du groupe. Chers parents, chers invités, nous, élèves de l'école élémentaire El Hadj Moundiaye Thiaw, avons l'honneur et le grand plaisir de vous recevoir dans notre bel établissement. Chers invités, permettez-nous de remercier très sincèrement Tonton Baratal Sonko Baratal, grâce à vous, nous avons désormais cette très belle école, dotée d'une bibliothèque, d'une salle informatique entièrement équipée et connectée. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, veuillez témoigner quand nous offrons ce bijou pour la quête du savoir. Tonton Bara suscite chez nous l'envie de venir tous les jours à l'école et d'être performante. Ainsi, nous, élèves de l'école élémentaire El Hadji Moundiaye Thiaw,

ba tax tey école bi mel niiw men te ki si jiitu mooy le ministre Serigne bay Thiam parce que yàgg naa ñëw fii fi laa dëkk mosuma fi jóg mais moom moo sulli si ñun li nga xam ni si la deferu école bi jóge moom moo ma woo si boppam ni ma président dafay dem Fatick man damay dellu Rufisque dama bëggoon yow nga dem Thiès parce que tey dañu institué journée de retour au royaume d'enfance pour que yéen ñi ngeen xam ni école publique moo leen formé si école piblique ngeen jàngee ngeen dellu si école publique yooyu wax a yi ñu gis leen pour ñu am toujours yaakaar si école xam ni surtout l'école publique ma nga fa mu nekkoon te képp ko nga xam ni foog nga sa jàng ëllëg dina mel ne ñi nga xam ni ñoom la ñu désigné pour ñu dellu seen école yi jóge ma kontaan ci lool bi ma ñëwee tamit fekk fi ay samay xarit ñu dugg ci classe yi wax ak élèves yi xëy na li ñu doon doon wax dégg nañ ko waaye ñun li nga xam ne moom mooy sunu wàll moo doon dellu fa nga xam ni mu foofu la ñu defee suñu ndaw fàttaliku na mu menoon ba ñu nekkee xale bi ñu ñëwee li ñu gisoon euh, metti nañu lool lool lool lool parce que école bi xàmmeetuñ ko woon surtout bi ñu duggee ci biir classe yi gis boobu la ñu jël résolution ak ñu fi taxawoon ne école bi dañ ko dañ ko defaraat. moo tax bi may gërëm ma jiital si ministre bi nga xam ni lépp si moom la soxoo teg si nag ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñun jàppale ñu ba tey école bi mel nii. école bi nag mi ngi nii men na ni mu mel waaye dafa am lu ma waxante woon ak xale yi te rappelé leen ko léegi si biir classe yi. bi ma fi ñëwee daaw ànd ak le corps enseignant classe bu nekk ñu dugg fa ñu expliquer leen li ñu bëgg a def dama leen wax ni leen man de entrepreneur la te su ma liggéeyee dañ may fay donc dama bëgg léegi bala ñuy commencer ñu signer contrat bi contrat bi nag man dinaa defal école bi ba mu mel ni nga xam ni noonu laa bëggoon mu men ko léegi nag yéen dama bëgg ngeen faye ma ay résultats yoo xam ni yu mucc ayib la ñoom ñëpp ñu signé yéen a ngi fii di ma dégg si ngeen déet léegi nag comme man sama jaan wàcc na jébbal naa école bi seen kilifa léegi nag je vous présente la not laa facture la facture nag c'est le cas de la note c'est les meilleures notes de Thiès et Sénégal donc wax naa ko ci mbooloo mi dinaa dellu siyaat fii nag fin d'année pour ñu seet ba xam yéen def ngeen seen wàll ci contrat bi maa ngi leen di gërëm di leen sant. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale maa ngi ànd ci gàttal ak kilifa yi fi nekk yépp tey kilifa yi Thiès. muy imam yi kilifa diine yi délégué de quartier yi ànd ak ñi bootu ci seen ginnaaw muy gouverneur préfet sous préfet yi ànd ak euh, vice-président du conseil départemental maire yi fi nekk conseil yi ànd ak population yi fi teer yi yëpp di la nuyu nuyu bu gën a sell euh, Baara Sénégal baare yégoo lañ miin baare yégoo bi ñu miin complot la waaye am na beneen baare yégoo mooy baare yégul waaye ñépp xam nañu ne baare yég na te bi mu yégee yeggale na kon baara jërëjëf baara merci Bara thank you moo daan wax laay ñaaxam ma naan ko cuune roy la juum waane roy la saay waaye fii dañu ñaan ñépp man laa roy ñépp ñu am kàttan bi te bu ñu juum bu ñu saay ndax bërëb bii di bërëbu éducation di bu jàngale kon bërëbu exemple la vous avez donné l'exemple vous avez posé un acte fort boo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a jànge yemul warul yem ci Thiès nag ci senegal yëpp man dafa am loo xam ne dama ko lancé woon mu mel ne tey da nga ci posé benn acte boo xam ne ah bég naa ci lool bañ ma laajee luy sa ambition dama ni faire de Dakar la banlieue de Thiès kon lu mel ni bu kàngaam yi nekk Thiès yépp defee ni yow kon loolu balaa yàgg mu am kon un appel est lancé à Baba Diaw à Agibou Soumaré à Thierno Alsan Sall à Idrissa Seck à Souran à l'ensemble des fils de Thiès à l'ensemble des filles de Thiès yi nga xam ne yàlla kàttanal na leen pour que kenn ku ci nekk la nekk ci biir dëkk bi moo xam école la moo xam leneen ta nga mën ci dara nga def ko baara jërëjëf. du sant du gërëm bu baax ñi nga xam ni tey nekkuñu fi du sàkk suñu boroom yàlla xëpp leen yërmandeem xare leen àjjana te ñu musoon dugal seen loxo si école bi ma bëgg a wax monsieur Mamadou Dieng mais également Jégg Ndiaye mais aussi du gërëm du sant bu baax may sa Ndiaye. nous inviter la comité de gestion de cette école à faire un bon usage de ces réalisations hautement salutaires. Ce que Baratal a fait dans cette école correspond à mon budget annuel. kon loolu du ndaw du invité ñëpp ñu jàpp si du leen gërëm du sant. pour daloo école bu bees. boo xam ne bii liñ fi gis tey ñu tabax ko fi def ko ci ay jumtukaay yoo xam ne yépp yu bees la mën nañoo wax ne kenn mënu koo méngale ak li nga xam ne moo fi nekkoon muy école bu màgget waaye nag li ko waral mooy gis-gisu président Macky Sall parce que dafa toog at bi mu toogee mu ne laaj na ñuy wax képp koo xam ne kii jànge nga ci benn école nga jàpp benn bés ne fay dellu ci bés boobu ci la baarataal ak ñi mu doon ànd ñëw ci école am bi ñu gisee école bi nu mu mel ñu fas ne école bi danañ ko jëlee ci situation bi tey jii loolu am ci turu président la République ci turu premier ministre ak gouvernement Sénégal yépp ci turu katu école bi inspectrice d'académie inspecteur éducation formation xale yi ndongo daar yi nekk ci biir école bi ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant ñi ngi lay ñaanal yàlla lii nga xam ne def nga ko fi mu jógee yàlla na ko yàlla ful ay yooni yooni yoon nga xam ne da nga mën a continuer di ko def léegi nag li nga xam ne moo am solo ci lii mooy lii mu def dafa war a nekk royukaay pour képp koo xam ne kii yàlla may na la xolu def te xolu def boobu kat aajuwul ci alal ju bari nit ku nekk soo nekkee ci sa quartier sa école mën nga faa def dara mën nga ñaax association xale yi association jigéen ñi yeneen association le fait que seulement ñuy ñëw di contrôler école bi ndax niñ ko tabaxee woon mi ngi nekk ba loolu loolu rek def la pour école bi parce que kat lii yéen yéen ko moom yéen a koy sàmm su fekkee ne parents d'élèves yi yenn saa yi dañuy ñëw wër classe yi xool association famille dañuy ñëw wër classe yi xool li nga xam ne méngoo fi ak li fi war a am ñu yeggale ko directrice bi su tawee ñu yeggale ko inspecteur bi inspecteur d'académie wala préfet wala gouverneur su boobaa dangeen sàmm seen école def ci sa école du rek am alal def ci ku nekk mën naa continuer di liggéey pour école am donc ñi ngi koy gërëm bu baax ci loolu ñu ngi leen di ñaax nag di leen wax ne tey jii da ngeen a war a jël engagement ci baarataal engagement bi mooy lan mooy école bu mel nii ku ko am muy jàngalekat yi muy élèves yi amatuñu lay ci pour ay résultats yu baax li ñu war a def mooy xar seen tànk tubéy jigéen ñi odduwaat parce que gis naa ne ay enseignantes ñoo fi ëpp pour que li mu jaral ñi nga xam ne ñoo def école bi ki nga xam ne moo def école bi mu jaral leen ko pour résultat yi baax waxuma Thiès waaye ñoom dañoo war a def défi pour gën a baax les résultats ci Sénégal ndaxte école bi ñu am amul fenn ci Sénégal maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo taxaw ci liggéey bi ñoom ñëpp muy comité de pilotage bi monsieur Diouf jiite ko di gërëm waa quartier bi yëpp ci teeru bi ngeen ñu teeru di ñaanal élèves yi li nga xam ne moom la yaakaar ci seen njàng mi yal ko yàlla defal yàlla na yeneen baarataal yu bari yu góor ak yu jigéen génn ci seen école bi yàlla na fi ay docteur génn ay ingénieur ay magistrat lépp ba président de la na génn seen école te li muy wone nag mooy que ne nit ki soo bëggee def ci sa àddina mu tekki découragé waroo koo def parce que Baratal mii tey def école bi jàng na ba am ay lijaasam bi gën a kawe génnul Thiès fii la jàngee école élémentaire fii la jàngee lycée Malick Sy fii la jàngee école polytechnique ci lay doog a teg tànkam Dakar kon boog xale yi ak seen i jàngalekat li ci des rek mooy ngeen gëm seen bopp gëm ne fii ñeneen yegg ma ngeen faa yegg gëm ne résultat yi nga xam ne yeneen écoles yi moom ngay am mën nañ koo am loolu rekk laa leen di sas loolu laa leen di ñaan di leen gërëm di leen sant wasalaam